changement juge si loolu la également si li nga xam euh, document les neuf documents yi nga xam candidat déposé ko. Mhm. parce que pour rappeler c'est un neuf documents foofu noonu dañuy ñëw si par rapport ak candidature d'Ousmane Sonko. parce que amna un complément wala dossier am complété wul dañ ko validé wala duñ ko validé. Mhm. dañ ngeen ayib mu mandataire maanaam UC bi lettre de constatation bi mu yoroon lettre boobu noonu si boppam moom mooy firndeel ne. décision juge Samba Sy ak décision euh, Ousmane Racine Thior que dañ ko war appliquer manam ci walu yoon euh, ba léegi nak ñuy gis mandataire ñi situation Ousmane Sonko ah, mo situation Ousmane Sonko parce que c'est un cas spécifique mhm. d'après la loi mais fofu so déglu waté ki nga xam ne le professeur euh, Sidi Alpha Sidi Alpha Alpha ndia ba pap Alé invité ko dafa dafa indi ab leral ci walu droit manam li nga xam ne moom dal Ousmane Sonko mu ne amul dara li nga xam ne mun téré mu doon candidat ci élection présidentielle yu yu 2024 yi di ñëw. jappalé ñu rek interpellé leen ñu ko quoi. Sénégal set gaaw leen sen micro way xoolal nañ nañ ko Maître Clédor waaw waaw Maître dor. Maître Clédor nañ réel waaw. nañ ko ngi ñëw mais ah, euh, euh, il a une déclaration à faire peut être. si c'est allez-y. waaw peut être c'est Maître Clédor dor. peut être il a une déclaration à faire par rapport à la euh, à la situation ici au conseil constitutionnel. Euh, pour fàttali leen rek li nga xam ne moom moo indi askanu euh, moo mooy ñu indi fii nga xam ne mooy conseil constitutionnel par rapport ak lu ñeel euh, vérification des parrainages ak li nga xam ne moom mooy candidat yi nga xam ne déposé woon nañ seen dossier les sept sages war a ñëw contrôler li nga xam ne moom mooy moom mooy dossier yi nga xam ne candidat yi jotoon nañ ko mu ko déposé mettre clé dans les images muy l'avocat d'Ousmane d'Ousmane euh, Sonko. Ah. mais kenn lu mu wax. bon maître Sirek Clédor euh, donc euh, manko ko euh, donc ko gis est-ce que nous nañ am réaction par rapport lu ko waral fi conseil constitutionnel mhm. mais non non pour l'instant wax mhm. mais xamuñu peut-être xam nga wax nga ko say mhm. candidat particulier la conseil constitutionnel peut-être sécuriser jàngale ñëw en tant que juriste loi yi lan la si wax droit yi lan la si wax ak par rapport conseil constitutionnel limi wara jël en compte est-ce que war na ko jël en compte waru ko jël en compte xeyna mom dafa ñëw pour veiller si dossier bi quoi. Euh, donc man euh, non la ko gissé nak mais euh, xeyna bu démé ba nga xamanténi genn na dinañ mëna am réaction am par rapport lu waral mom mu ñëw conseil constitutionnel parce que ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko Ayib Dafé mom moy mandataire am quoi. mais gis nañ né Ayib Dafé mom fu mu taxaw rek da ngay gis da ngay gis maître Ciré Clédor si. ci wetam xëy na da koy accompagner fi nga xamante ne euh, wàllu droit la foo xamante ne ak xam la ak yelleefam la pour di ko gën a dooleel daal pour l'instant xam naa euh, si teewaaye metre Ciré Clédor Ly au conseil constitutionnel pour l'instant euh, foofu lañ koy mën a yamale ñu xaar ba mu génn ko monsieur Cissé ma bàyyi la yow nga joxe sa jàngat nga teewaayam teewaayam teewaayam si biir conseil constitutionnel du ñu jaaxal jaaxaluñu parce que li nga xamné mom le anam bi Ousmane Sonko déposé sa candidature ci conseil constitutionnel son mandataire bugg si woon yéey yàbbi yaatu. kon ñu mëna a jàpp peut-être dans le cas échéant kii di Mbette déposé dossier Ousmane Sonko fi nga xamné mom moy mooy conseil constitutionnel loolu yëpp mën na see mais laata loolu. ba jamono jii nii amagul benn xibaar bi nga xamné mom mo tuké fi nga xamné mom moy au niveau du conseil constitutionnel lu les mandataires wala candidats yi jam ñoy ñoy ñoy ñoy dem de gauche à droite du dem dugg pour euh, faire ndaje bi nga xamné mom mo ñël walu vérification euh, des dossiers de candidature euh, pour les présidentielles à venir. donc comme ni ma leen ko vous êtes en direct au niveau du conseil constitutionnel donc euh, certains confrères bàyyi nañ leen ñu dugg ci biir mais certains tamit ñom ñoo taxaw ci biti donc euh, Sen TV Info sans limite. Euh, Yegle TV et aussi avec euh, euh, Sénégal 7 donc et aussi Presse Afrique tamit donc c'est des organes de presse en ligne yoo donc ligue bu am solo ñoo ngi koy def mais malheureusement donc conseil constitutionnel a sélectionné organes de presse qui ont été donc je suis ak confrère Yegle TV euh, donc euh, sans euh, ñëwoon ak mais damay ak par rapport à li war si conseil constitutionnel ak dépôt de candidature dossier dossier journaliste dossier dossier dossier candidat mm-hmm.

bërëb bi ñu war a yi leen ci ay résultats war a génne tabb ñi nga xamne ne dugal na seen seen fiche parrainage dugal na seen dossier ba xam mat li ñu lay complété amuñu ay doublon wi ou non euh, ñi nga xam ñoo war dem fofé ci bokku ci jongante élection présidentielle 2024 surtout euh, liñ ci liñ ci gëna mëna mëna mëna mën a rek sànq rek suñu bone confrère mi ngi koy wax muy di problème au président Ousmane Sonko euh est-ce que ak li ci xewoon yépp ci diggante. Euh, DG euh, qui DAF euh, ak fi nga xamni mom moy mooy ak CDC ak fi nga xamni mom moom mooy DG. E. loolee ñu di ko li nga xam moy fiche parrainage ba ñom ñu leen déposer ak ci seen yenen feem fi nga xamni mom moy ci conseil constitutionnel légui lolé day lo xamni day. lo xamni Sénégal yépp yépp yépp ci la ñu gën a bàyyi xel tey jile ci kaw ki nga xam ne président Ousmane Sonko tay ji fi nga xamni ne mooy conseil li mel liñ ci mëna wax rek moy lépp lo xamni ni rek. tey jilee xewe na fi wala ruus na fi ci biir nit ñi nañu topp en direct euh, ci ñu ma fës ci ànd ak yéen surtout di waxaat encore une fois bu buñ nañu bàyyi segg gi nga xam ñu ngi koy segg gi nga xam ne la presse man foofu dama ci insister quand même segg ñu segg la presse nañ nañ nañ ko bàyyi parce que yaakaar naa ni euh, presse yëpp lañu war a mën a yemale mu doon benn euh, amul xaaj ak seen tànn tànn ñi tànn ñi bàyyi ñi bàyyi nga ay télévision bàyyi nga ay sit bàyyi nga ay ay ay ay ay ñoo xam ni

Euh, donc comme suñu confrère bi nous ko euh, en direct euh, au niveau du conseil constitutionnel donc mu nekk étape boo xamante si processus électoral bi candidat yi nga xamante ne dañu bëgg donc ñu déposé un dossier donc le 26 à minuit si la ñu arrêté candidature affaire yi mu nekk benn situation boo xamante ne euh, dafa débordé dëmb la ñuy waroon gisee ak presse bi mais finalement yëf yi tey la mujjee am euh, donc candidat mandataire yangi ngi ben benne par benne euh, donc gis nañu maître Ciré Clédor li tamit ñëw na mais pour l'instant gisaguñu Ayib Daffé euh, mu ñëw fii donc en attendant amna ay quelques organes de presse yo xamantene tamit dugg nañu ci biir comme ni ma leen ko waxé rek donc conseil constitutionnel ñun xamuñu fan la basé lolu fan la ko tek daanaka ñi sélectionner sélectionné yépp sommes euh, majoritaire la presse sénégalaise donc dizaine des organes de presse la choisir euh, donc nous taxaw euh, nous les sénégalais donc vous êtes en direct sur la et sans non pour qui pour quoi. bu baax a baax a baax di